naqar la ak métit suñu ay xol naqar ak métit boobu nag kenn teguñu ñu ko lu dul suñu njiit yi nga xam ne ñoo fi nekkoon dem ak ñun élection ñu gañe leen ñu kompaloo ak ki nga xamante ne mooy su profet parce que ñoom dañoo luubal ndox mi session ndox mi leen dénkoon ñëw di ko saytu ñu luubal ci ay millions yu bëree bëree bëri bëgg koo reesal te askan wi lànk loolu fa yéene leen teg ci yoon moom moo tax ñu def complice ak musal su profet bu Taïf tey ñoom ñoo fi yebal gendarme yi ñu ñëw fi salon fii yëpp population bi génn parce que dañoo bëgg imposé imposer ak waa teg ak waa teg du ñu yoral suñu ndox tey du ñu yoral suñu ndox ëllëg suñu suñu session ndox ñun ñoo ko yoral suñu bopp parce que li ciy génnee ci am koom dafay delluwaat ci population bi kon duñ nangu tey duñ nangu ëllëg ak waa teg di jël suñu ndox mi loolu moo waral manifestation bi am fii lépp li fi xaw nag responsable su préfet la parce que am nañ suñu ay ndaw yoo xamante ne dañ leen a gaañ ñu ngi fii ci biir gendarmerie bi donc nit ñu ngank seen koor woor ba heure bii ñu teg leen finna ju tol nii te dara teguñ ko fenn lu ci ay tappale ak bëgg a reesal li nga xam ne alalu askan wi ko dundee la population commune bu Sadio population commune bu Sadio du ñu ko nangu tey du ko nangu ëllëg kon wax ji mu gudd mu gàtt mooy ak waa teg na lem ay dëbësam te dellu su préfet ñu ngi koy wax ne ko ñun xuux dàqu ñu fii ay ragal dëkkuñu fi ay borom xam-xam ay borom pas-pas yu am dignité ak diine du dunde seen aw ñàkk ñoom ñoo fi nekk kon li muy def ñu ngi koy wax ne ko du jàll su doon suba suba suba ñu affronté waat ko comme ni ñu ko affronté tey wala nu ko gën a métti loolu na leer ci boppam am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne jàpp nañ leen pour le moment nii ñu ngi fii ci brigade bi pour le moment ñi ngi fii ci brigade bi ñun mënugu ñoo wax libéré nañ leen mënugu ñoo wax libéré guñ leen parce que liñ a jàpp sax mooy libéré guñ leen parce que dellu seeguñ suñ biir te buñ leen libéré woon ñu nekk seen sabar dañu ñëw taxaw fii ñu taxaw tay étudiant lañ yoo xamante ni ñu ngi jógee ba université xëy ngank seen koor jógee université de Dakar ñëw fii ñiñ jàpp ñuy toll ci quatre personnes ñu ngi fii ci biir ci biir brigade bi a na ñoo xam ne dañoo dem hôpital ñu toj nañ seen bopp tuur seen deret loolu responsabilité boobu su préfet su préfet nag dafa war na dëggal boppam mu ñëw bu ñëwoon tey dinañ ko affronté wan ko nag population bu Sadio ragaluñ ko ñun dëgg moo ñu ñor te ci dëgg googu la ñuy dox. problème bi li ko indi wax naa la ko dafa am ñu fi nekkoon jiite mairie bi ñu dem élection coalition Yewwi Askan bi nga xamante ni le maire Diomaye Diaw moo nekkoon ci bopp bi ñun ñu demoon suñu pop parti bopp mooy coalition ànd taxawu commune bu Sadio dugg ci Yewwi Askan wi gagné élection yi 100 pour cent gagné bu leer naññi. le maire sortant benn bureau ci commune bu Sadio gañewu ko ci Sadio centre kooku dañ ko dóor dóor yu métti mu am ñu nekkoon ak moom nag di dund ci toppale di dund ci naaféq di dund ci alalu askan wi te ñoo ñooy ndox mi biñ ñëwee maire bi mu placé woo dafa ñëw di xool session yi fi nekkoon di leen topp par benn par benn bi mu ñëwee ba ak si ndox mi gis na luwal nañ ay millions yu bëree bëree bëri bëri mu xamal ne leen millions yu bëri yooyu nag alalu askan wi la te da ngeen koo log da ngeen ko loggi ñooñu nag loolu lañ mënta wanaasu moo tax su fekkee ne su profet nag duñ ko accuser mais su fekkee ne dafa am complice bu dox si diggante moom ñoom ñi nga xam ne ñoo lekk ndox mi ba tax mu leen di jàppal tànk ne loolu jàll loolu moo waral problème bi loolu moo andi musiba bi am ñu ngi koy wax ne ko mbir mi suñu bakkan suñu demoon ba suñu doole ñu ngi wax ne ko population bi dina leen jox ndox ñu naan te bu fayeeku facture jotee du fayeeku parce que population bi ñoo ëpp doole ku manti doon parce que li ko waral mooy sous-préfet moo ñu jaay doole sous jaay doole fu mu am nag yoon amatu fa kon su préfet bu amee sañ-sañu jaay ñu doole ñun ñu am sañ-sañ ñu ñuy dëkk si dëkk bi génn ci dëkk bi riposte jàkkaarloo moo xamal ne kon li nga bëgg du jàll donc duñ ci xaar ay autorisation su mbir mi nekkoon lu jaar yoon ci côté day jaar yoon suñ côté mais comme dafa jalgati ñun dañuy jalgati parce que ñun ñoo dëkk ci dëkk bi